nemmeeku liggéey bi liggéey bi doorul tey depuis benn at ak genn wàll gouvernement wu Sénégal dafa ŋànkoon ay projet yoo xam ni projet yooyu yu xam ni euh, yu ñuy wax à action rapide mu ñu koy wax PSDAC di ay programme d'urgence programme yooyu jotagum nañ ci pare benn pàcc pàcc boobu ñu si pare tax na ñu am lu mat cinquante mille mètres ndox complémentaire tey suñu ndox bi ñuy mobiliser mat na quatre cent mille mètres Dakar loo xam ni gu guléet gis nañu population yi yëg nañ ko bu baax a baax loolu moo waral gox yu bari yu daan ñàkk ndox wala yoo xam ni pression bu ndox mi taxu ko woon demee noonu tey euh, non seulement am nañu ndox daanaka euh, lu ëpp lañ daan am su ma ba bañ a moo tax waxuma vingt quatre heures sur vingt quatre mais yeneen gox yu bari ñu mel ni ay Apexi ay Nord Foire ay euh, également fajaa ak yenn si Parcelles Assainies yu bari ak même gox goxaat yu nekk si gannaaw Tëngéej ay Parcelles Assainies yi nekk. tey mën nañu wax ni euh, jafe-jafe ndox yi bareetu fa mais dañ ni liggéey bi mënul yem foofu il faut que ñuy continuer di fagaru di anticiper di séntu ëllëg loolu moo waral euh, programme bi gouvernement bi euh, mu yokk ko yokk ko ci phase bi ñuy visiter léegi deuxième phase u Bayaax ñuy mobiliser lu toll encore ci quinze mille mètres loolu sax mën nañu wax ni soxlawuñ ko lool wante pour anticiper pour na tàngaay bi nga ñëw ndax bu tàngaay bi ñëwee ñi ñi ko ñuy gën soxla ndox yéen ñëpp fii taxaw gis ngeen ni am na lu bari yoo xam ni euh, wàññeeku na ci coono yi euh, dina tax que bu tàngaay bi ñëwee ñi ñi mën a am ndox bu doy loolu ñu koy continuer di ko continuer saa su ne mooy nga ñuy naan nous sommes à feu continu dans la euh, à la quête de la mobilisation complémentaire euh, d'une production ñu koy def ba projet yu mag yi nga xam ni moom la gouvernement bi ŋànk ñu koy wax ñetteelu usine wala usine bu bees bi nga xam ni ñu ngi koy tabax fële sa kër Momar Sarr te nga xam ni liggéey bi daanaka xaaj na ak usine bi nga xam ni ñu ngi koy samp si géej gi fële si côté Wakaam loolu nga xam ni liggéey bi euh, am nañu yaakaar ni fii 2020 incha allah yàlla war na ko mën a pour que fii booba nit ñi bañati jàmmat mbirum ndox donc moo waral gouvernement bi dugal si lu toll daanaka si ñaar fukki milliards si suñu xaalis pour que période de programme d'urgence yi ñu mën ko financer euh, ngir njëriñu askan wi ñu profiter it ci suñu ñëw bi tey pour nemmeeku yeneen projet yoo xam ni euh, dañ koy jagleel euh, askan walla population yi nga xam ni ñu ngi ci village yi nekk fii ñu ngi gën a ràññee ñi nekk Njaar ñi nekk Tóor ñu nekk Golam ñu nekk Jadem ñu nekk Njar Tijaan ak yeneen gox-goxaat yu nekk foofu yëpp. loolu euh, mu nekk yoo xam ni azufoire yi ñoo ko doon gérer mooy association villageoise yi euh, ñu am lool ay jafe-jafe ndox. ñu ni tamit dinañ leen ñu jagleel leen benn forage boo xam ne gañ ko bëttoon ba noppi mu nekk fële si njar murit techniciens yi dinañu xool ñun waa SONES ak waa SDE naka la ñu mën a def pour que xëcc réseau bi pour que ñu mën ko optimiser ba nga xam ni population yooyu tamit dinañu ci gis seen bopp taxaw nga ñu bi ñu ci suba fii ci Golam ci benn forage boo xam ni dañ ko jagleel maraîchers yi mooy ñi nga xam ni ñooy baykatu noor yi ñooñu même bu fekkee ni ñun waa SONES gi ñu tax a jóg mooy ndox bu nit ñi di naan mais état bi dafa ngànkoon ak yeneen partenaire waa PDMAS waa Banque mondiale waa AGDI les Canadiens yeneen projet yu ñuy wax le projet de Bertialane mu nekk euh, une batterie de forage bu jógee fële sa caaro Thiaroye ñëw ba fii euh, si euh, fii si Bayaax mu amoon si benn boo xam ni jotaguñ ko woon mettre service ndax dafa amoon problème mu ñu santaane woon ci benn liggéey liggéey boobu antu ñu ñëwoon doon ko nemmeeku joxe nañu tamit ndigal pour que forage boobu ñu mën koo taal pour que maraîcher yi nga xam ni ñoo ko soxla ñu mën ko jëriñoo loolu moo doon tey suñu tànk ñu ànd seer suñu équipe ingénieur yëpp ak euh, équipe waa SDE également ñu ànd seer ñoom ak entreprise yi nga xam ni ñoo amee liggéey bi li ñu gis tamit suñu xel dal nga si phase bi mujj bi ñu ngi si liggéey juróomi forage ñu liggéey si tamit lu toll ay euh, un peu moins lu toll si fukki kilomètre ligne électrique ndax village yi yëpp amuloon woon donc te suñu forage yi moo koy doxal pour dem si forage yi si ay toolu jàmbur nga ñu jaar nga ñu def ay piste de production donc permettre ale na ñu village am courant tamit ñu désenclavé waale gox-goxaat ñu si defar tamit ay équipement parce que forage yi il faut nga équiper ko tabax si benn usine bu bees usine boobu mooy pompe ndox mi mu ñëw fii tabax si tamit ñaari mbalka yu mag a mag yoo xam ni fa la ndox mi jaar avant muy dugg si réseau bi mu nekk liggéey bu am solo mën nañu wax ni àgg nañu lu ëpp si xaaju liggéey bi euh, presque soixante-dix pour cent te incha allah balay ñu mbébét ak su ñu yéene mooy bala tàngaay bi di agsi euh, liggéey bi nga xam ni ñu ngi koy def mu mën a pare loolu lépp ngañ koy def rek ngir anticiper léegi tubaab bi naan anticiper fa fagaru rek pour que bu tàngaay bi ñëwee ndox bañ a loolu moo taxoon gouvernement